balonaa ɗum ne mbawɗa mina wonɗon ɗum ko ɓoren ɗon ɗiye ɓuren ɗon en tant que secrétaire général koramin abdou ko jen jemma hamadou ko waaw di félicité ba fort d' après ɗo bureau yeggolngo waɗa d' après bureau provisoirement manque mañe lahtini bool yiirɗuno définition tamit présenté wu ko bët boo yóbbu sabaga goyu lax yiyaare wonora tamit ɗi philippe min lax yinayri na wona ɗi parol ɗanay fo ఆటలు గురువు ఫోటా దళాన మనం damay ot rek la fondation danga def fondation boobu daal di carte membre na yaa yor jeeram ndaxte boobu anu lomb mo tax mais boo lomb avant daa boo lomb mo tax daa daa de te defili fee baa fa kooku muy ot cent dix carte membre ti ko cegu bu yaay ne soixante douze carte

total hen nde 180 mille ɗi 72 ga jeeya hande 180 mille leyyi 180 mille fi 19 frais a frais yogoti wora entre 38 mille 200 ɗigi 38 mille 200 janani ay tase 149 mille 200 monata fundi yogtude 110 carte 110 carte la fundi yaytude 72 carte 72 carte c'est 38 carte

manam té né dile groupe la koy fi min tengira bo min do fo yo filir koy fi min tengira tamit kaabir bo ari lir bo xamul la du sol yo parce que yan bu ko yuxu sa yan laxti yeen ko yeen yeen yeen bu wara sa ja dina tigo tigo yi ak tay ja koy fi nul rek dana nay tigé sun dana tigé sun bu la be mono mono tay bo lo mu da bo lo mu karra ta tayu dana ñu xam dera yan na tay na dara ma defoo photocopie waajani koye fumin ndiro fo demande ɓoyi ɗo mais kaabiri bo awa li défili article o ndaxte 9 9 9 9 9 point 9 point jarane par exemple premier o nee na chaque at carte membre bu ñu yor nii dañ koo dóobu maanaam chaque at faw bu ne wax di lom da yaakaar bi carom fo téeméer ji babel le fernane ana vous arbiti manam chaque membre du yaltitede fuɗɗe laye keesi service de routiére le ndug ɗi proposition bay bureau 2000 francs proposition 2000 francs proposition proposition ɗa 2000 francs ya ɗa naɗna chaque mois 2000 francs chaque mois la proposition est de bureau. point et info daara bi di regroupement secrétaire jël séeréer pour fu bokk naa fay na séeréer ndu fay na séeréer man fay quoi ci gàttal info daara bi di par exemple pour fu chauffeur man ni El Hadj Dame mais bëggoon chauffeur pour daw transport fayko ɗo poids leset so bugo dawol poids oto nga amane waɗa dawol transport ba ɓoyi bureau no ka uri yeey kum suro par exemple en cas de force majeure yi nga xamante ne o mine he ñak o laxta jaan ɓoy bureau ne ono manam permanent kum suro no mengue ota ne fo dawla léegi pour fu bokk définification maanaam pour fu bokk dana ni su mine hen carreleur fo dawla oto fot fon fay hen fay bokk ɓowno ɓowno tee Malick ahe na chauffeur transport ina la kudi famira ahe couleur dawal wo taxu boy warana ahe bogo bo mais fo mine hen chef chantier fala auto fo dawale fo liggéeye chef chantier fo aye bogo haal guruba ba bogo ka otan kono oɗano kuɗi foto fot oɗano hen manam tinga yore sa dépense dotto sixième o maanaam dañu jël ay sanction ci bi ñu nekkee réunion yi classe bi Pa Moussa Mbel duñu déglu di perturber nit ñi ci jël sanction wala ñu nekk ci réunion ñii di saagaate loolu dañu ci jël sanction parce que loolu bokkul ba ay sixième point ba léegi waaw ba léegi comme ba léegi yeewal na rek boo xam réunion de ñee woon a de ñee woon a de maanaam teewlo yi ne woon boobu te ayeen beneen xente ay nga xamante ku nekk seen seen kon ɓeyi fi kolo de fa lax fi loon daa ɓeyhino chevauche ayede walla bugoye bokkol wonde yeeɓe muɗera ari min koɗoɗe mi aj bokk walla fono manque hede ko respect ko wonati manque respect ni i koɗonata yena wona ko manam difficulté yiɓanani ɗi ñawonno jaɓɓe so yeɗɗay par exemple yene won ɓoore ko tewla iñawonno jaɓ tewlara ko mi o jibni ko ɗiɗi ɗo fof parce que daara bi de fi yaraay cër bu wane bi fale ainsi de suite mën nañoo dem a dem ba ñu génne info j'espère que ba xawti concerné ful fu ñee ful fon bureau na naara par exemple woxamude AG mo wonude yi ndimone ɓe kadu jeera o ɓeɓɓe no kadu wonte woni nga xam ne neɓɓe so mi neɓɓe ni moon ma yeɗɗe yeɗɗe may gueɗɗe gueɗɗe ɗi posé kuɓiro wiw o so mi tangde mi ba bay bureau oh, ñoom lañ jël sanction fii fu ñu fa amul bureau bépp nax na i fee fa daana bi de par exemple bureau tëgru foofu suñu benn di provisoirement maanaam ay renouvelé chaque kii chaque chaque deux ans chaque deux ans dañ koy renouvelé kii ana bureau ay lof lof assemblée générale ko xam na yàlla sañ xale bi de boy Giro lu doora wala heure bi xamat lu yoraa yéen samat aw kay Doudou Mbengue 9000 points daa par exemple laata fondation yi ana e daa neuvième position neuvième question te de j'espère que daa de fukki solo trop doon da jeewoon du solo mais day laak solo trop daa de social parce que ci olaa fu mbooloo chauffeur wala mbooloo bëpp boo social da ci solo te yaakaar bay boo xam a bri bri dara maanaam dañoo dañoo xaw privilège social social yi no si jër jër grave wóoruyu ay musique af wala ay toog une semaine wóorum feebar ñu ne noonu feebar daa yéen ñu wut yéen oda oda euh, feebar bi tax ñuy wax benn ana fa accident accident boo ana fam social il aw di yen dal na yeex kulloo parce que la xay faut ngeen prévoir quoi au lieu de kulloo feuille bureau ay def ana def social IPFA IPFA mari wone di manam xel mu sel sama buwe la ngeen ngeen aw ngeen bu yeen yi tan auto laat yi yoon na kaar yi am na yoon da koy tere nit ko def ko def ba yoon teg la loxo ñun suñu suñu yoon newul daa booy yow cago maanaam doo social bi ñu diglee ci mbooloo ma buy naa cag so nag nii la ngëm ngëm mais wax bu feebaree nopp gi dina war a lu yoon di tere ci biir lépp lu yoon di tere boo ci nekkee ba yoon teg la loxo wàllu fa asra ci nit ñi yaakaar bi leerte j'espère que day nëpp nëpp mooy jaraani daa xeen point yi nga xamante bi di daal Depois virou, ah, José, depois, ah, não vai morrer. Depois virou, fica